neuf milliards kii def ci nguur ci administration fukki ak ak juróom mënuñu ko tuumaal dërëm léegi yow moomu ñuy tuumaal yow yaay toog di yàq deru kooku bëgg Sénégalais yi déglu la mais il nous prend comme des man jàpp naa ne comme peut-être seen xarulaat yi ñu yar seen kër yi mais su fekkoon jàppee na may may ñaa ak nguur gi jàpp nañ ñu nit ñun ay nit lañ. du toog moom di jéem a yàq deru Ousmane ba pare di xalaat ni ñun dinañ ko bàyyi xel li muy wax. deux cent millions yu ñu yu ñu ko jox pour dommage yu mu war a may yu mu a fay euh, Mame Mbaye Niang nee na Mame Mbaye nee na bu ko amul lu mu ko fay dafay saisir huissier ñu dem confisquer këram. <laughs> waa moom loolu la yéene Ousmane. Mhm. maanaam ñoom li ñu yéene Ousmane la ñuy wax waaye li ñu yéene Ousmane ak li yàlla di dogal ak lu peuple bi bëgg ci Ousmane bokkul te ñoom ils sont minoritaires dans Ousmane chaque jour mu wax ko nee na leen bu du woon police ak gendarmerie du ngeen ma yàpp bu du woon police ak gendarmerie bi ngeen manipuler ndax la police suit les ordres de Antoine Diome te Antoine Diome nee na man ay instruction Macky Sall ci lay dox et on nous dit on est dans une république y a un ex procureur bu toog ne man baa bëgg naa jàpp Ablaye bal Macky Sall ne ma bu ko jàpp Sen TV la toog wax ko ñëpp di dégg ex procureur toog ne man dama bëggoon jàpp Ablaye Ablaye Balde Macky Sall woo ma ne ma bu ko jàpp ma ne ko dama koy jàpp léegi ñooñu ñoo toog naan on est dans une république a la le Sénégal est à euh, une séparation des pouvoirs séparation des pouvoirs dina am ci réew moo xam ni procureur de de la république procureur est-ce que xam ni boo gisee ñu naan procureur de la république naan président de la république parce que procureur il est là pour la république dafa fi war a nekk pour le peuple moom moo war a aar peuple bi léegi nag procureur boobu bu dee day défendre couleur wala day défendre palais ba mais procureur boobu moo tax ñun ñuy xeex. ne ñun suñu procureur warul defendre Macky Sall ak ñi mu àndal dafa war a défendre le peuple sénégalais léegi kon procureur de la république tey bu fekkoon ne réew mu yoon lañ nekk procureur de la république du def conférence de presse naan di wax citoyen sénégalais li nekk ci dossier médical maanaam ñoom ñoom ñooy saaga sunu loi yi di saaga suñu institution yi ngir bëggal président est-ce que xam nga ni dossier médicale secret la. pourtant Macky Sall taxaw na barki démb di xas médecin Sénégal yi naan leen Sénégal bu ngeen gisee nit ñi di faju jee Europe parce que fii ku fi yor sa dossier médical da koy siiwal te dossier médical secret la Macky Sall moo ko doon xeex. tey Macky Sall procureur Macky Sall baaxum moo toog wax dossier médical Ousmane Sonko publiquement ba naan sax dafa asma. mais loolu. loolu c'est injustice yooyu. le procureur général. Euh, dafa garaaw déclaration sorti boobu mu def dem di ba ceex ni dafa am ay commando yu nekk ci biir Pastef defal benn benn benn jàngat euh, autour de cette sortie du procureur général Ibrahima Bakhoum. waaw léegi mon frère euh, nan la sax yow. Abdou Khadre Abdou Khadre sama turandoo nga man Abdou Khadre laa tudd donc Baye Djili. Mhm. ce pays est une farce. explique. wallaay ce pays est un pays de malentendus parce que bu ma nee barki démb yàggul dara ba mois de mars jàllee ministre garde des Sceaux ab kii Malick Sall ministre de la justice taxawoon na ne dem ca France 24 ne mbër làmb yi ñoo génnoon ndax dañoo amoon li leen naqari ñoo génnoon taal dëkk bi mois de mars ba mu jàllee yaa ngi fàttaliku loolu mm-hmm. en tant que ministre de la justice sénégalais yëpp gis li xew si Sénégal ñu nar a jàpp Ousmane Sonko nar ko tëj sénégalais yi génn wane seen métit mhm. léegi moom mu dem France 24 ne leen du usman Sonko du kenn mbëru làmb yi ñoo amoon lu leen naqari te mbër yi xoola matuñu 1 pour cent ci Sénégal. Mhm. te 14 régions yëpp a doon tàkk mais lu garaaw mais pour wax la rek nag seen seen ñaax seen caaxaan gi ñuy caaxaanee république bi. seen caaxaan gi ñuy caaxaane peuple sénégalais seen caaxaan gi ñuy caaxaanee askan wi parce que mënu ma nangu. mois de mars jàll ministre de la justice de France ne leen mbëru làmb yi ñoo taal Sénégal waa léegi Sénégal bu di ay mbëru làmb yu matul 1 pour cent ñoo koy taal kon force reste à la loi bi ñu wax ak le ak ak suñu justice dafa fort ak. ak sécurité bi ñuy wane. 1 pour cent. Mm. loolu yaa ngi ne da ngay miim mais ci borom xel yi yaa ngi wane ni da nga faible parce que bu dee benn entité maanaam mbëru làmb nga xam ne ñun bu ñu matee 10 000 licenciés ci lañ yem léegi 10 000 taal quatorze régions quarante six départements nee na yooyu yaay da doon néewal li xew ba jël mbëru làmb yi ne ñoo taal Sénégal ñun dix mille licenciés lañ dix mille léegi imaginez dix mille sénégalais ñoo taal dix sept millions de sénégalais quatorze régions quarante cinq quarante six départements xam nga loolu mooy wane nii dañuy war dañuy dañuy war di ñu kàcc. léegi loolu dàq na Aïssata Tall Sall dem ne Malick Sall nee na mbëru làmb yi la. te yow xam nga ni loolu du dëgg man xam naa ni du dëgg sénégalais yëpp xam nañ ni du dëgg léegi loolu dàqu na benn fen a ngi noonu Aïssata Tall Sall ñëw ne c'est des forces occultes moom ak Antoine Diome Antoine Diome ñëwaat ne ay rebelle lañu léegi benn gouvernement kii ne mbëru làmb yi la kii ne force occulte yi la kii ne rebelle yi la Mamadou Diouf ñëw ne jàpp nañ fi trente et quelques Euh, même kii nañ soupçonné nañ fi trente et quelques rebelles moo waroon manifestation bi waroon am la 16. ba xam nga ñoom dañ def le 8. déclaré waat le 16. Mamadi waaw le 17 Mamadi Diouf ne manifestation bi bu ngeen gisee préfet gàntal ko parce que dañ fee suspecté xaw ma trente nangam rebelle. présence de rebelle jàpp nañ fi kenn te des na bu dee trente et quelque la jàpp bu ñu jàppee kenn kon des na lu mu bon mën une yoo xam dañoo évaporé wu nee nañ ci dëkk bi moo waral kon manifestation yooyu du mën a am. léegi rebelle yooyu ba tey ana dossier boobu trente quelques rebelle nga ni dugg nañ Sénégal kenn nga jàpp léegi ana ñi si des fu mu mujjee déggal nga ci dara léegi benn gouvernement ministre de la justice ne rebelle ministre de ne ne mbër yi ministre des affaires étrangères Aïssata Sall ne ne force occulte ministre de l'intérieur ne ne ne ne ne kii ne force spéciale xaw léegi force spéciale force occulte rebelle euh, ci benn gouvernement léegi tey nga ñëw saison 3. Mhm. saison 3 ko tuddee. saison 3 la saison 1 force spéciale rebelle amoon na sax saison dañoo fàtte bii saison 4 la mhm. ndax amoon na amoon na mbëru làmb yi gars yi mbëru làmb yi lañ fàtte Malick Sall taxawoon na ne mbëru làmb yi ñoo taal réew mi léegi bi loolu jàllee léegi baaxum ñëw na nee na mission commando ah. mhm. loolu la ah <laughs> léegi léegi am problème am problème ku la wax tey dara. gëm amul mu waxaat la tey amul mu waxaat la amul su la waxee nga gëm loolu sa affaire la léegi man lan laa doon xaar si ñoom man li ma doon xaar si procureur mooy mu wax ñu quatorze morts yi nga xam ñoo dee mars deux mille vingt et kan moo leen rey defe naa ñun askan wi loolu lañ doon xaar ci moom parce que deux mille vingt et un mu ngi bëgg a yàgg te ñoo ñu waxoon dina leer hmm? hmm? li ñu doon xaar ci moom mooy. xale bi ñu dóor bal ca Bignona bopp bi tas. Mamadou Korkaba Mamadou ba muy sénégalais waaye nag ñoom boo àndut ak nguur doo sénégalais ndax Mamadou ba bal nañ ko dóor mu dee ay waajuram ñàkk Sénégal ñàkk waaye ministre de l' intérieur demu fa jaale ji ko masawu ko bindul sax parce que jàpp na ni ki dee du nit parce que àndut ak ñoom. Mm-hmm. waaye am na benn ku ñu saccagé ay biens am ca marché mooy fi mu demoon noonu. ñu dem fa seeti ko ba dikk ko ni dinañ ko. dédommagé dédommagé est-ce que ay dégg ah? léegi kii dañ ko rey bal lañ ko dóor teel mu dee déjà amul victime kenn waxu kenn attewu ko waaye kenn jaalewu ko parce que du nit parce que comme àndut ak nguur gi moom bu dee garaawul est-ce que ay dégg fu mu bëgg a waxee ci l'autre côté ki ànd ak Ousmane Sonko tën tëj ko ci kaso bi ba tamit sol lu weex li parking am lañ dem bàyyi nan bàyyi aale la je la tudd parking am lañ dem mabal ko. léegi pour ma wax la ne la procureur baaxum li ñu doon xaar ci moom mooy mu ñëw wax ñu les forces de défense et de sécurité fan lañ teg ba Ousmane Sonko de citoyen sénégalais ñu koy jàpp di ko jaay doole di toj otoom di ko dugal ci fourgonnette di ko yóbbu tribunal te amuñu droit pour def ko ñun loolu lañ doon xaar ci ci procureur waaye procureur bu ñëw di charger population am procureur boobu xamul rôle am kon il ne mérite pas notre respect parce que procureur dafa war a fekk ñuy tuumaal askan. nguur gi nar a tuumaal kenn ci askan wi procureur bi ñëw setal askan woowu comme procureur France yi ni ñu def comme magistrat France yi ni ñu def ne Macron bul ñu fontoo ñun duñu ñu a maate suñu peuple manifestation yi manifestant yi nga ñu indil dañ leen di libéré ndax on est là pour le peuple ñu ñooy ay magistrat ñu ñoo xam lan mooy rôlu magistrat parce que Macky Sall falul magistrat yi magistrat yi ñu ngi leen fay ci contribuable sénégalais yi kon les magistrats ne sont pas là pour Macky Sall wala pour APR wala pour Benno Bokk Yaakaar ils sont là pour le peuple kon li ñuy xaar ci ñu ndawul yoon yi mooy ñu aar askan wi mais pas di charger askan wi mais yow boo xoolee heure bu procureur yi génnee luy charger askan wi la ñuy wax est-ce que mos ngaa gis ñu eh, ñu condamné benn acte bu exécutif bi def te loolu mënul nekk. est que yaa ngi dégg fi ma bëgg a waxee. maanaam il faut que ñu honnête tuuti ñu jéem sax respecté xelu sénégalais yi. sëñ Abdou Khadre. nee naa la xoolal sorti procureur yi ba mu dalee am ba tey est-ce que mës ngaa gis benn yoon ñu remettre en cause li état bi di doxal. mësul am chaque jour askan wi tooñ. askan wi ñooy doon force occulte askan wi ñooy doon rebelle askan wi ñooy doon ay ay ay ay kii force spéciale askan wi ñooy préparé ay attentat kenn ci askan wi moom la ñuy jël dossier médical nga xam ni c'est top secret. ñu koy liir nit ñi di ko dégg muy Ousmane sonk est-ce que xam nga ni dossier médical man sama bopp sax kenn amul droit piblier ko. moo tax bi ñu woowee médecins yi su suma assistance yi ñu ne leen ñun euh, li ñu naan secret médical. ordre des ordre des euh, des kii ñu daf ñoo mayul ñuy wax di nekk ci biir dossier kenn waaye bu demee ba procureur général mooy toog opinion nationale international di ko dégg muy wax feebaru sénégalais. loo xam ne moom moo ko waroon a aar ba képp ku ko bëgg a moom mu teg la ci yoon parce que yaa ngi dégg le mal est très profond parce que ñu war a aar yoon wi ñu war a aar loi yi ñu war a sàmmoon teg loi yi ba kenn ku ko bëgg a ruur ñu téela ñooñu ñoo ñëw ñu xëtt loi yi di daggate institution bi di jaar ci kaw te kii li nga xam ne moom mooy loi réew mi parce que loi réew mi nee na amul kenn ku am droit toog di wax li nekk ci biir dossier médicalu benn sénégalais ba Macky Sall doon ko xeex yàggul dara tey un procureur général moo toog ne Ousmane Sonko dafa asma mais lii lan lay nuru lu dul politique lii lan lay nuru lu dul procureur bu sol malaanu yére politique di défendre parti léegi procureur boobu est-ce que mérité na ñu respecté ko léegi procureur boobu la nit ñi di di ko jam baaraam ne ko waxoo dëgg léegi ñu ne gis nga. respecté wuñ as respecté wuñ sàtt day réew yi respecté wuñ institution yi ñu ngi nii procureur wax ñu koy weddi mais procureur bu fekkee dafa sol mbubb politique di wax waxu politique mais nit ñi réponse politique rek lañ ko mën a tontu il ne mérite aar yoon wi moom mi war dëgg moom mi war a doxal dëgg moom mi war a ba ku ko a teg yoon mais moom moo toog di dëggate yoon boobu kon ñun amatuñu droit respecter procureur boobu parce que procureur il doit agir au nom du peuple pas bu agir au nom de Macky Sall wala ñu mu àndal. il doit agir au nom du peuple ñu ngi may wax ci oreillette bi ne lu ñu cëraloon ci waxtu jeex na lan ngay tàggatoo pour la prochaine fois ñu gën ko yaatal lan ngay tàggatoo ak sénégal yi doon.